Always be. jaajëf sama gars malen ma leen di béggee bu baax a baax di len jaar j'espère que yéen ngi cool yéen eh, ngi dal jamu di béggee ñi nga xamante ni ñoo abonné ci chaîne bi ma di siyaara di len wax jaa ngeen jëf ñi nga xam ne ñi ngi doog a dugg ci chaîne bi ngeen abonné te bu leen abonné ba bu leen fàtte ba seen cloche notification bo vidéo bu mën dugal rek ngeen mën ko am gars yi tey dañuy ñëw wax si déjà vidéo boobu sa génn ba pare muy Sori l'officiel ak Hakill muy son bi nga xamante def nañ ko vidéo ñu def si dio réaction Ngaaka Blindé laa leen di wax d'après bi nga xamante ni dugal na extrait bi euh, ci Instagram am lan la waxee kiil aussi dinaa ñëw tamit ci Diaz kaanam bi nga xamante ni jëlal na paar Ngaaka classe Hakill Hakill tamit euh, Nezy moom it jëlal ko paar fayul ko ci Diaz kaanam gars yi dañuy ñëw si Sori l'officiel ak Haykel euh, euh, comme ni ngeen ko gisee nii rek Ngaaka bi nga xamante ni euh, dugal na extrait son bi nga xamante ni Sori ànd na ko ak Haykel daf ko dugal ba pare daf ci suuf nii son bi bu neexee ma tontu la muy wax ak Haykel foofu bëgg wax maanaam son bi nga xamante ni Sori ak Haykel ànd nañ ko mu ni Hakill eh, bu fekkee ni son bi neex na rek dama lay tontu mu nekk <laughs> benn affaire boo xamante ne sax mu ngi si def benn emoji di ko di ko di ko di ko ree quoi xam nga mi ngi koy mbalak foofu quoi euh, gis si loolu day wane ni rek <clears throat> game la en plus bëgg na yëngal Hakill euh, def ci loolu mais son boobu noonu moom bon son la boo xamante ni vraiment <clears throat> dio la ci sóor yi mi nga xamante ni mi ngi biir KBC. Euh, ak Hakil euh, Hakim mi nga xamante ni moo ngaaka ñu no ay affaire euh, ngaaka mu tontu ko mais après si le Jazz Kaana ñëwee def sound bien. ko muy classe 10 bon d'après man vraiment sound bi nice surtout ma beat bien, ah. man moom beat bi sax man si laa gën faju sax que jazz donte Jazz Kaana bon jox na li nga xamante bon beat bi la laaj di big Blanks aussi maa ngi gis job bi nice surtout sample yi nga xamante ne yaa ngi koy def aussi te man xam nga ko ma xam ni ku ma xam ne moom sample sama sama fort la dama ko bëgg mais franchement euh, Lenx euh, yaa ngi si liggéey lu yéeme ah, parce que yaa ngi jël source yi yaa jël bon suñu suñu suñu suñu suñu suñu old moo xam mbalax moo xam instrument riit yi nga jël donc euh, di si def yenn délire moo xam afro moo xam drill trap waaw noo sentir en tout cas nice na moom moo job bit muy Lenx muy euh, son bi nga xam ne Jazz Kan classe na ko Hey Kill bi nag bu mu génnee dëgg yàlla bon comme ni mu amee fépp am na ñoo xamante ni mm, bon apprécier nañ ko am na ñoo xamante ni bon maanaam apprécier nañ ko mais àdduna moo bindoo noonu mais euh, franchement Jazz kaana ñëw na défendre maanaam Ngaaka Blindé défendre gi mooy que si labelam la nekk gis na ngaaka Hakill euh, mi ngi ko doon kobosu comme lu mu waxoon ci son boobu noonu muy waraj bi nga ko génnee li ko ci Hakill waxoon ci ci ci ci Twitter euh, xëy na loolu metti jaas Kana moom tamit mu jëlal paar ngaaka te am na ci droit xam nga loolu comme ñi doog dugg ci rap pour ñi xamul loolu la ñuy wax protéger ko les protéger comme ni ñu doon wax euh, ay temps Euh, Gaston bi ko waa Takrikanos di di di protéger mm, Takrikain di classe waa kër gi waa kër gi tamit ñoom seen seen seen seen ay protéger nekkum reporter Guéro waaw euh, di wax euh, Pathé yàlla na suñu borom xaaree àjjana mu bokkoon si groupe boobu muy authentique esprit xam nga bi ñuy protéger waa kër gi fekk ni waa Takrikanos bi ñuy classé kër gi. waa waa waa reporter guerre ñoom ñoo leen tontu loolu la ñuy wax les protéger te te du te loolu du Sénégal rek même kaana yi dañ koy def quoi du question de ay ay ay kii booyam la wala nangam euh, juste ko sax ay booyam lañ waaye ay booyam lañ ndax euh, mën naa ni fii ku nekk moom am nga sa booy xam nga am nga sa booy euh, boo nekkee ci kaw. moo xam Dip moo xam Ngaaka nga ñàkk ko fësal mais ku nekk am nga sa booy boo xamante ne tey buñ la classé Euh, kooku noonu nga xamante ne artiste la di génn protéger la loolu loolu loolu loolu fépp la am loolu la am fépp la am donc au school yi nga xam ne xam nañ rap euh, États-Unis xam nga ñi fa am ay boy yu la xamante ne bu leen classé ñu génn défendre leen bëri na lu si mel ni Ross Jux mi nga xamante ne c'est le protégé euh, de de Sam li may wax nii gars yi au school xam nañ li may wax bañ na ko ba ñoom. Euh, nëbbatu wuñ ci quoi kon Jazz Cana loolu mu def bon daa si pop si hip hop la bokk euh, je ne pense pas que bonk euh, gars di ko adressé naan ay bul nekk booy kenn bon si si côté ay nees yi wala ñoom ñëpp ci ci ci ci dañoo nekk si ñoo xamante ne tey jii nii dañ leen di jàppale c'est normal tey bu leen kenn naree ñëw ñu ñëw protéger ko c'est ça qu'on l'appelle les protéger ba si nees moom tamit mu ñëw aussi moom it fayu pour protéger kiil xam nga déjà euh, loolu nekk na loo xamante ne tey ñoom ñaar ñëpp danañ si gagné danañ si gagné niñ si gagné mooy tey Diaz Kana ñëw na classe Hakill tey Hakill bu ko neexoon mun na ko tontu maa ngi gis sax benn affaire bu muy préparé mais je pense que du du réponse moom Hakill du réponse boo xamante ni euh, daf koy def pour Diaz Kana peut-être mën naa nekk parce que game game la parce que game amul du ma tontu kii wala suma ko tontoo day am lu ma neex bu doon loolu la buubaa du jël ay booy. def si ñoom dara ba pare wëlbatikuwaat di classentaat boo yooyu noonu ba tey boo yooyu noonu ay su ay superstar lañ ay star lañ mais Sénégal doo comprendre quoi bon euh, bu ñu comprendre si communication wala ñu xam plan de carrière naka nga koy defee pour pour àgg si kaw euh, defe naa ni classe yi bëri na ñoo xamante ni tey fësal na leen ndax Diaz Diaz Kana mën naa ni classe bi teyit it am na lu mu ko lu mu ko yokk am na lu mu ko yokk. ndax ñu si bëri am na ñoo xamante ni peut-être mosuñoo xam jazz kaan à travers si classe bi xam nañ ko am na ñoo xam ne xamuñoo woon kuy Nezzy man mii yàlla rek moom a tiim bu dul woon jazz kaan du ma xam kuy Nezzy te après laa dem gis compte am euh, si compte compte compte Instagram am gars yi ko flow xam nga te dëgg fa yàlla man jazz kaan moo tax ma xam ko kon cest à que euh, importance bi mu ngi foofu kon de question da ay booy ay ñi ay booy lañ donte seen ay booy lañ mais tamit loolu dafa bokk si game bi. dafa bokk ci game bi gis naa aussi même euh, di ko bigama ah, euh, le chroniqueur euh, MPT muy dal mu leen di dal naa leen yéen ay booy ay booy booy bu leen nekk fii di nangoo nekk booy kenn dem leen booy genre je nag bon daf ko def pour euh, juste rek pour neexal bi wala daf ko def pour dafa nag si dëggam mais moom xam na bu baax ni lii lu yàgg la fii lu yàgg la fii ndax fii moom ku nekk am nga say booy man mii di wax ak yow maa ngi sama studio am na ay booy yoo xamante ne tey peut-être bu mën classe woon su ma leen waxul bu leen bu leen leen faale wala dara ñoom mën nañ dem classe seen comme ba si moom MBT am na ay booyam yoo xamante ne tey bu ko kenn xoosoon booy danañ taxaw xam nga jëloon ko dafa défense euh, d'une part loolu moom si game yëpp la mais yàqu si dara parce que MBT tamit loolu bu ko defee tamit dina indiwaat dina indiwaat bruit ndax game bruit moo koy doyal moo koy doxal bruit moo koy doxal muy coow faaw muy ànd ak coow coow boobu noonu nag mooy neexal affaire yi quoi moo tax peut-être MBT moom euh, fu mu ko jëlee euh, bëgg na xam nga. xam bu booy yi xam nga ba booy bon mer parce que boo xoolee déjà Diaz Kana gis naa ko mu mer bay tontu MBT si commentaire yi bon muy commentaire yi ngeen gis xam nga euh, tontu na ko si euh, mel yeneen page bu ñu ko duggee sax moom gis naa ko foofu muy tontu ba man sax récemment mm, maa ngi doon commentaire ci benn commentaire di expliquer naan lii ci rab la boo ko États-Unis am na foofu. am na si si dëkk yi ngay gis yëpp am nañ seen ay protégé ba joxe exemple si les cas de Takri Takri Kano jamono bi ñuy protégé Gaston di ko defal le son 37 bi xam nga loolu yëpp daas hip hop la lépp hip la ndax hip hop bi warul nekk benn moment boo xam ne rek ku ne da ngay cool noppi nga sang ba ngay def dara quoi il faut mu def gars yi ku nekk def bu ko defee mm, affaire yi am am coow am bruit xam nga lépp ñu teg ko si hip hop en tout cas nice na jaas kaana ndax euh, moom man Mbacke laa ko xamee woon ah, ci benn concours ku yàgg bëgg hip am na benn concours bu fi amoon boo xamante ni dafa jël oto ñëw fii euh, verdict bu Mbacke moom moo jël euh, final bi. gagné na aussi tamit ni nga wax hip hop bi nga xamante ni Fata ni nga ko doon def xam nga bon pas mal moom rampé na ko parce que bëgg-bëggam la donc aussi tamit. bu buñ ko xeebal loolu nga xamante ni tey jii nii moom si parcours am la ndax nit ku nekk boo sañoon tey nga ni à ah, parcours bi lii ak laa mu ngi dëkk xam nga Orside jugee jugee jugee jugee jugee jugee si Orside bi ñëw biir capital pour xam nga percer sa talent moo tax ngaa ko xëcc ko mu ñëw nekk ci biir KBC donc job kese la mon frère amul secret xam nga One Love yow ak Niiz yëpp ah lépp ñu teg ko si GM maa ngi bëgg gars yi yéen tamit commentaire yi seen réaction naka ngeen gisee. classe euh, jazz kaana bi ak euh, réaction ngaaka bi nga xamante ni bi mu posté vidéo euh, sori l'officiel ak xëykil seen son boobu noonu muy wax naan bu neexee mu tontu waaw ah, gars yi loolu la woon maa leen di béggee bu baax a baax di wax ñi nga xamante ni ñu ngi dugg dugg ci seen bi ngeen abonné te boo leen abonné ba pare bu leen fàttee ba seen cloche notification ba vidéo bu mën dugal ngeen mën ka am